Ah. yaakaar naa nit ki di nga toll foo xam ni nag da ngay da ngay da ngay jéngu dama gis benn décision bu bu ñu bu ñu rendre démb Gambie. Gambie waaw Gambie. loolu war na inspirer suñu. magistrat yi wa waay suñu magistrat yi parce que président deful yoon ñu indi yëf yi ca yoon nga ni ko yow yaa nekkul ci yoon loolu wax dëgg yàlla kooku way la. te nit ki war na seet ni tôt ou tard day jóge fa mu nekk. Mhm. dafay jeex. Sénégal du jeex mais fonction yi dafay jeex. donc ah, man président Macky Sall xam nga moom amuñu problème man je vous assure bëggoon naa toog ak moom xam nga d'accorduñu ci politique. Mhm. mais wax ko lii ma wax léegi. mu def ko. na ko sàkkul woy wu rafet. sorti par la grande porte Sénégal naw àddina naw ko à jamais. mais mais ay intérêt yooyu jariñ jantul def troisième mandat wala ñu la ñi ñi nga àndal puus la ba nga wut def ko bu yëf yi amee rek bu safaan bi amee rek ñu daw la. waaw ah, parce que yow dégg président Wade ngi neen moom yëpp a ngi côté. Macky Sall non que dégg naa te dama la koy seedeel dégg naa ba Wade bëggee dugal projet de loi ba. Eh, yow rek yaa bokkul ci waxoon na ko président projet de loi bi baaxul. loolu bëgguma ci wax sax am na ñoo xam ni doo ci bëgg am na non fekkee woon nañ li ma bëgg wax mooy uh-huh. am na ñu ko fekkee woon uh-huh. ñoom bu ñu nekkee sur les plateaux nañu am honnêteté wax na mu demee woon waaw waaw parce que euh, loolu boo boo tëddee nelaw et puis da am tranquillité ak sa conscience parce que yàlla rek moo ñu tiim uh-huh. wadd dañu jaar fu nekk mu defal ma lu nekk donc jàmm rek laa ko war a yéene ba affaire bi amee ba tour bi egsi ci man dama ko ni monsieur président li sénégalais yi duñ ko accepter jamais mun ma Pape Diop <laughs> voilà li wax sax ci jarul alors ma ma ma ma ma bon coupez-moi la parole wax ñu toog toog toog ba ci biir mu ne ma Pape Diop n'avait rien à dire ma ni ko non toog. dégg naa ña fa nekkoon bi ñu génnee am na ñoo xam ni témoin lañu gendarme lañu foofu ci présidence xaw ma ci sax ñenn ñi mais dégg naa wax nañ ko président après bi le 23 juin ci ngoon. Mhm. colonel Sissoko c'est un général maintenant. Mhm. moom euh, mënul wax parce que militaire la mais dégg na wax ji bi ñu génnee dama mer ba presque dama saaga ñi nga xam ni ñoo nekkandoo woon ci biir parce que dama leen ni lii ngeen wax ci biir. gëmu leen ko gëmu leen ko te bu ay amee ëllëg kenn du leen fi gis ñoo ñu mën naa citer ñëpp kenn nekkatu ceeg waat. ñëpp transhumé. ñëpp kenn naa ñu fa nekkoon ñëpp kenn nekkatu ceeg waat. ñëpp a transhumé mu nekk nii. Euh, en tout cas man damay gore ba dee. wut du tax ma def loo xam ni. waruma ko def damay tegu ci yoon rek parce que réew mi ñoo ko moom ñoo ko war a defar bu ñu ko joxee ñu liggéey bu ñu ko joxul tam ñu am suñu ngor toog di seetaan waaye en tout cas démb dafa am ku ma doon waxtaanal ma ni ko tu sais que parti amatuñu ay militants ma ni ko surtout les partis au pouvoir mm-hmm. ma ni ko ñi fa nekk bokkuñu fa de ma ne ko bu da dara daloon Macky Sall léegi ñëpp daw parce que boo seetee ñoom ñëpp damay seet booba télévision ma ñu gis ñu gis benn kii benn koo xam ne sénateur la woon ci ñun ñu ni ma nga xaw ma ban institution <laughs> dëkk te mu nga dëkk ci dëkku àll ya ma ni àddina daal boo doy waar. ah dégg naa kay moom. <laughs> donc trente la amoon trente six alors euh, loolu moo tax. éthique moo euh, ñi nekk président en général ñi leen wër yëpp duñ leen wax dëgg ndax li ñuy am te yàlla mooy joxe. yàlla mooy joxe alors président on va faire une petite pause pour une page publicitaire ñu dellu si waat euh, euh, ci waxtaane nag wàllu koom-koom électricité beeg niveau d'endettement yooyu ñu waxtaane on fait une petite pause et on revient Hmm. sur les de eh. bonne gouvernance nag def nañ ci ay jéego wala. <laughs> kooku de sax bëgguma cee wax parce que ñuy wax ci scandale de jour en jour moom dafa bari damay bàyyi rek avec la clameur populaire ñu ñu nit ñu ngi suivre. mais ñu bëri ñu ne opposition bi dañoo xawoon mere askan bi tuuti parce que dañ le li ñu wax yëpp sénégalais yi dañ tekk di déglu rek def ñu benn yëngu-yëngu. Hmm. xam nga dégg naa sax ay. nit di wax na way ëpp métti et puis ñu ngi jiiñ di wax ne opposition bi est-ce que nekk ñu waxtaan ak Macky Sall si suuf. non non non loolu moom. <laughs> man de man. <laughs> bokkoo ci kay xalaatul man man moom <laughs> kenn du ma xalaat ci yooyu. Hmm. parce que xam nga du ma du ma jaay sama deret wax naa ko du ma jaay sama deret donc waxtaan bu ma koy def dama koy def ci loo xam ni ñëpp a yëg mu nekk intérêt réew mi nee na. président Macky Sall bis bu wootee waxtaan boo xam ni xam naa ni li njëriñu Sénégal rek a ci nekk. Hmm, hmm. bu ma woowee bu ma woowu danaa fa dem mais man yoo xam ni affaire u caaxaan duma ci dugg xam nga sur le dialogue euh, euh national ba démb biig ci guddi mhm. tey mooy dernier dele bi laa door a wax ma ñu envoyé ay représentants man leen mais euh, la politique de la chaise vide aussi n'est pas une bonne chose nañu dem xool déglu déglu ba xam luy xew bu ñu gisul lu ñu xam rek ngeen ngeen def seen déclaration. Hmm. parce que toog aussi naan du ma dem rek du ma dem ah, il faut que ñu dem xool lan lañ fay wax mais daal nee naa leen am na yoo xam ne moom foo ngeen def ko seen bopp ay ñii di wax naan euh, troisième mandat dañ ko war a dindee affaire yooyu yëpp dañ leen instrumentaliser bu ngeen foo déggee yooyu ngeen xalaat loolu rek ngeen leen def seen déclaration ngeen dem jarul ngeen may tàggu. voilà euh, sur l'audit aussi bu ñu nangul jël lële mais loolu sax maa ngi commencé dégg naan ñoo ngi koy saisir di ko dugal ci fichier bi. parce que ba ñuy dem ci dialogue bi man maa waxoon sama représentant bi ba mu demee aussi loolu ba mu demee rek dafa def proposition bi ñu retenir ko dans les principes d'ailleurs mi ngi ci mais après kenn ci dialogue bi koo xam ni mi ngi ci biir. dafa ñëw seet si ma ni ma dégg naa ni sax loolu proposition bi nga defoon c'est une très bonne proposition mais ministère ña ngay anticiper di dugal ñooñu ci biir fichier bi ma ni ko mais ba tey mais on a le chiffre bi ñu déclaré woon ci fiche euh, ci euh, ci ci élection bi ba tey ñu jàpp leen foofu te ci diggante bi ah, amul révision amul révision ma ni buñ ko defee c'est suñ ko deful nag nañ ko indi rek ñu xool jël ay informaticien temps yi passé dégg naa la nga wax ci eh, Abla est-ce que rapprochement yow ak PDS possible waaw xam nga politique lu possible lul amul mm-hmm. mais sama diggante Ablaye Wade c'est plus profond c'est plus profond ay relations personnelles d'abord parce que dañu yàgg euh, ñu ànd ci moment yu jafe mm-hmm. Euh, ñu tisse ci ay relation yoo xam ni yu solide la yoo xam ni am na ñu ko jéemoon a yàq sax mais malheureusement bon. le temps reste le meilleur juge. Euh, boole ceeg euh, bu ma demee ak moom ba mu jël pouvoir bi lépp lu ma waroon defal mu defal ma ko xam nga ko mel noonu boo dee gor du ngeen mën a tàggoo. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que bii ñu amee friction yu ndaw yooyu man loolu laa koy wooye wax naa ñëpp ni suñu toog wax waxante lu ñaaw wala dara dara dara booba pour man bu jiitewul liste législative yi maa ko war a jiite naturellement loolu rek moo ñu jotale woon moo tax jubóo bi jafewul man damay wax toujours nii euh, toujours nit ki bu xuloo war nay sàmm jubóo ba mm-hmm. euh, moo tax kenn dégguma ci ma wax ci dara lu ñaaw parce que loolu moom noonu lañ ma yaree du ma wax wax bu ñaaw sax man damay dem léeg-léeg damay taseek ay nit ñu naan ma yow di ni ngay politiquer parce que dégguñu la ngay wax wax bu ñaaw di nga wax sa wax ak fayda dem sa yoon noonu lay continuer nag samay nit sax lool laa leen di wax bu leen saaga kenn bu leen dara wóorul bu leen ko wax hein bu ñu leen wooyee ci ci ci plateau yi lu ngeen xamul bàyyi leen ko bu leen dem ndaxte noonu la ñuy politiquer donc Ablaye Wade loolu d'abord moo nekk suñu diggante mais bu loolu passé lay Wade dafa nekk homme politique boo xam ni Sénégal mën nañu wax ni le plus expérimenté. Mmh, mmh. en matière d'opposition et même pour le pouvoir. il a fait beaucoup de choses. beaucoup de choses alors que ne serait que pour ça kooku jige ko léeg-léeg di waxtaan ak moom pour mu lay xelal mais ayul. Mmh. mais je pense que président Macky Sall sax. waroon na di dem di toog ak Ablaye Wade parce que Ablaye Wade expérience bi moo am ci gouvernance ci ci ci ci état amu ko moom amu ko bu ko defoon njariñam la njariñu réew mi la loolu moo tax euh, presque chaque semaine bu dul dara sax sama kilifa la ma ñëw seet nu mu nu mu toogee ñu waxtaan ma daal di dem. dëgg la chaque semaine ñu gisante benn yoon. dinañ toog sax ba jóge fa comme biig par exemple waxuñu benn yoon politique benn yoon waxuñu ko politique loolu nag moi je crois que ku mel ni moom euh, koo xam ni bëgg nga di politique bëgg a yore réew ëllëg am ko am expérience ci situation bi nga nekk bu fekkee ni opposition nga nekk mm-hmm. kooku di ko jige mu lay xelal ayul ci nekk pouvoir aussi xam ni am na expérience u état nga dem di toog ci wetam ça ne veut pas dire que lu mu la wax loolu ngay def mhm. mais dangay jël xalaat bu fekkee ni bu baax la nga def bu baaxul nga bàyyi àddina noonu lañ koy doxale looloo tax du ma fëggëj wax dëgg yàlla wax dëgg ne hmm. jërëjëf euh, président Pape Diop maa ngi lay sant di la gërëm euh, si li mooy sa première sortie te dañ ci waxtaan rek nga d'accord ci euh, vraiment di la sant di la gërëm bu baax a baax di sant gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig dajee àllarba ci seen beneen émission face à Pape Alé seen chaîne de télévision Sen TV incha allah